His Excellency President Adama Barrow moom nag daal dina wàññi yéene ci ay jéego yi nga xam ne nag tegoon nañ ko pour tere jàngoro bi nga xam ne nag moo di Covid 19 pour mu daal di law bokk na ci jéego yooyu di li nga xam ne nag moom moo di night coffee gannaaw bi nga xam ne nag night coffee bi nag daal dina jeex tey ci guddi ki nga xam ne nag moom moo di njiiti réew mi His Excellency President Adama Barrow daal dina jeexal li nga xam ne nag moom moo di night coffee ci loola leen nag marché yi dinañ daal di ubbi dooree ko juróom-benn waxtu ci suba dem ba juróom-benn waxtu ci ngoon li nga xam ne nag moom moo di bitig gi ak yeneen béréb yi nga xam ne dañ dee jaay lekk bokk na ci supermarket yi ñoom dinañ mun a dellu jaay comme nuñ ko baaxoo di defee ci biir lii nag am bi nga xam ne moom lañ sos pour mu gestu wàlle jàngoro ji seen loi bu xam ne boobu lañ teral ci atum 2020 daal dina wane jéego yi nga xam ne nag ci li nga xam moom moo di tëj ah, baay ak night club yi ak restaurant yi nga xam ne nit ñi dañ fa dee daje cinéma yi ak vidéo club yi béréb bi jimeekaay yi ak béréb yi ñu dee daje pour play fa music nit ñi bëri daje ci taati yi ak yi ak lépp loo xam ne nag wàllu tàggat yaram na ba léegi eh, ñu ngi ko daal di eh, tëj a bokk na ci li nga xam nag tamit tere nañ ko mooy ndaje bi nga xam ne nag dañ ko dee ndaje mu mel ni li nga xam ne moom moo di ngénte ak ay céet ak nga xam ne nag dañ dee dox si mbedd bi te ànduñ ak ñi ñoom ñoo di seen i waajur ñu ne luwaa bi nag képp koo xam ne nag yàqa nga ko su la luwaa bi tiyee dinañ teg lu ba ci junne dala ci sa kaw ñu ne sarta yi tamit nga xam ne yu lañ teg ci li nga xam ne moom moo di solum li ne moom moo di face mask nag ba léegi mu ngi daal di taxaw ni nga xam ne dañ dee génne ay xibaar yi nga xam ne nag dégg nekku ci ci wàllu mbas mi loolu tamit leneen loo xam ne nag loi bi tere na ko ba léegi